wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad ibn abdillah wa ala wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di am mbégte di dellu siwaat ak yéen ci seen bi nga xamante ni moom lañ baaxoo am ak yéen muy laayante biir ak yéen ci alquran tey ji mbokk yi nu nara waxtaan ak yéen ak fàttalante tuuti ci saar wi nga xamante ni mooy suuratul fiil suuratul fiil mbokk yi muy saar woo xamante ni sunu borom subhanahu wa taala daf ciy leeral xéewal bu rëy gum defal waa lislaam rawatina waa Màkka waa Màkka dëkk dëkk bi nga xam ni fii la néegub yàlla bi nekk nga xam ni fi la ndawul yàlla li nara a feeñe muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ni moo gën ci mboolem ku yàlla yónni waaye itam mooy mujj ci ñi yàlla yónni yépp mu war a feeñ Màkka kii at mi mu nar feeñee ci la lii xewe ñu koy tuddee atum ñay atum ñay wa kon at moomu mook saar wi ñoo bokk tudd saar wi mooy suratul fii at mi mu wàccoon moo tudd atum ñay ci même at moomu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba feeñ jamono ñay wi lan moo ko fi andi lan moo andi ñay wi kenn ci noonu yàlla yi ñu koy wax abraha abrahatal ashram nekkoon buuru yaman moo mosoon a ñëw ni dafay màbb kaaba gi dafay yàq néegu yàlla bi màbb ko boo ko defee kenn dootu aj néew jaana bopp loolu nekk lu rëy nekk musiba nekk aw ay waaye bam nee day def loolu jóge yaman jëm màkka ànd ak ñi àndal te ay soldaar war ay ñay war ay ñay loolu moo andi ñay ba ñuy ñëw waa màkka bi ñu yëgee ni Abraha nga ñëw war ay ñay am ñu mu àndal ñu ñëw ñi dañuy màbb kaaba gi au lieu ñu nekk fa ñi dañuy taxaw aar seen dëkk aar néegub yàlla bi waaye def dañoo génn daw bàyyi ko dëkk bi ndax ñàkk mën a dékku li nga xamante ni moo di aw ayam ak doole jëm nga waaye yàlla bi nga xam ne moom moom àdduna bi moom moom màkka moom néegam ba nga xam ne nee na fal ya'budu rabba hadal bayt yàlla bu borom néeg bi kon da ko réyal réyal na néeg ba tax mu ba ni may borom yàlla moom moo aaral boppam nag kaaba gi yàlla moom itam moo toroxalal boppam noonam boobu moo na saxal pexe bi bon yoon loolu la yàlla jalla wa ala di leeral ci saar bi muy suratul fiil muy xew-xew boo xam ne it bokk na ci li li muy jàngale di ko wane di ko junj mooy am na yonent bu nar a feeñ buy waajee feeñ ci dëkk bi ba tax na même ci at moomu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane jamono muy aamul fiil bismillahi rahmaani rahim yàlla ni alam tara kayfa faala rabbuka yow yonent bi yàgg yàgg képp kuy dégg xanaa xamoo nan la sa borom def ca ña bëggoon a màbb kaaba gi wa war seeni ñay ña waroon seeni ñay ñëw ni dañu màbb kaaba gi la leen yàlla sa borom def ci mbugal leen ak toroxal leen xanaa xamoo ko axam ah, loolu ñëpp ko xam ñëpp ko xam ndax siiw gum siiw ndax rëy gum rëy ba tax at mi mu xewe woon sax ngir bañ kenn fàtte xew-xew bi tax na ñu jël xew-xew ba tudde ko at na tudde ko at na muy loo xam ne kenn du ko mas a fàtte même ñun fi fekkul sax bu ñu juddoo dañ koy xam ndax bu rek ñu xam ne ko lii mooy at ma lii xewe woon kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ko yàlla da ko koy xamal di ko ko fàttali yi ko koy fàttali moo tax ma ne ko xanaa xamoo na sa borom defoon ca waañay wax ca ña ña waroon seeni ñe ñëw ni dañu maba kàpp alam ya jaxal mu xanaa du yàlla deful kay defum seen pexe yu bon yooyu fii tadlil mu nax sax seen pexe ya niil seen pexe ya mujjul fen lañ ca bëggoon amuñu ko kon te sa borom moo def loolu ndax loolu kat waa Makka defuñu ko ñoom dañoo teel a daw génn dëkk ba bàyyi koog moo kon ka aar néegam ka aar kaaba ga ka naxasal pexe noon ya du kenn ku dul yàlla sa borom loolu di lu mat a bàyyi xel ndax guerre boo xam ne ñëpp daw yàlla rek azza wa jalla kon moo def loola moo aar ab néegam moo na saxal pexey noonu ya yëmu ca waaye dafa sax nag daal di alak ñooña ba kenn gisatul lu bokk ca ñoom alam yaj'al kaydahum fii tadlil xanaa yàlla sa borom deful pexe noonu yooyu nekk pexe yu dul fenn pexe yu naax saay lañ ci bëggoon amuñu ko ndax lañ bëggoon mooy jëlee kaaba bi ba kenn dootu ko wër te ba tey jii kaaba gaa ngi kaaba ga mën nga ñuy wër kon falillahi alhamdu wal minna wa alayhim yàlla sa borom yónni ci ñoom ñoom ñoo yàlla yónni si ñoom tayran ay picc aba bii la yoo xam ne dañoo doon ay mbooloo ay mbooloo ci ci gannaaw mbooloo am ay mbooloo yu toftaloo jamaatin mutafarriqa mutataabi'a jamaatin mutataabi'a ji maanaam picc yi doon ay groupe groupe bu ñëw ak groupe toppaat picc yooyu aba bi la picc yooyu luy seen liggéey xanaa dañoo nekk soldaar yu yàlla yabal ngir ñu wal alak ñu ngir ñu wal war a alak noonu bu bon boobu ak ñu àndal ak lan bëgg a def tarmihim ñu leen di sànni picc ya di sànni noonu yooyu bi xijaaratin min sijjiin ci ay xeer ay xeer yoo xam ni xeer yu tàng jër yoo xam ne ci ban lañ ko defee rek moom la picc yi yor di ko sànni ñi nga xamante ni ñooy non yoy ñuy daanu di dé benn par benn ñok lañu andal ba kenn ci ñok desul agguñu ci kaaba ga jotewuñ ci mabuñu ko lañ bëggoon amuñu tëluñu ko sax lañ bëggoon tëluñu ko ndax pitiya ñoo leen sànni la nga xamante ni bii mooy xeer yi bi min si jiir fa yàlla mu def leen ñoom yàlla sa borom def leen kaasfin makuul ñu mel ni am ñax ñax mu ñu lekk ay ay xob yu ñu lekk xepp ay ñax moo xam ni daaba yi dañ koo lekk ba mu des ñu sànni wala wala wala xobi garab dañ ko lekk mu des ñu sànni noonu lañ mujj mel ci ñàkk solo te da mooy seetal noonu yoo xam ne ba ñuy ñëwul nañ meloon ci armée ba tiital waa dëkk ba ba waa dëkk ba ñoo mujj daw génn bàyyi leen ngir ñàkk leen a mën a dékku yàlla mujj leen def ñu mel ni am na ci ñàkk solo kon lii mooy li yàlla def mooy li yàlla di fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko xanaa xanaa xamoo ko mbokk yi boobu nga xam ne moom la saar bi nett li xew-xew boobu ay bind yu bari ñu ngi ci la ci jiitu yàlla jàll wax la féetewoo bu mu féetewoo di aar kaabaam gii même bu ñëpp bàyyi woon kaaba bi yàlla mi ko moom moo koy aaral boppam muy gan ñaareel ba lii bu xewee am na luy bëgg a xew lu ca war a toppaat te mooy ndaw doo xam ne mooy taxaw ngir nekkal fi yàlla di woote ci ñu wéetal yàlla ak bàyyi ko bokkaat ndax kat Abraham yi li mu bëggoon a def am na yu am na yoo xamante ni yu bon la yoo xam ne amoon na ca Kaaba ga te mooy bokkaale yàlla jana wax la Kaaba ga la muy doon doon négum yàlla la ko waroon ci ay xërëm kenn xamul lu mu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi fatxoo Màkka lam fa yàqte damate ko ci ay xërëm mën na juróom benn fukk yoo xam ne ay xërëm yu ñu samp ca néegum yàlla ba ni moom la ñu jaam te la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyam moo nekkoon kon ñëw ngir jële fii loolu nga xamante ni muy bokkaale yàlla ak samp fii wéetal yàlla ci ak jaamu moom dong bañ ko bokkaale kenn te ndaw loolu bu ñëwee waa Màkka dañ ñoo war ñoo war a gën a jiitu ci topp ko ndax am nañ sens ci bokk ak moom benn benn dëkk waaye tam bokk na ci bind yi mooy aar gi yàlla aar kaaraange dafa nekk kaaraange loo xam ni dafa lawaale ba laal dëkk bi ak waa dëkk bi ba tax kenn ñemewul a songu kenn màkka ba ci ku dëkk màkk sax boo génnee ci àll ba ku tase ak yow xam ne màkk nga jógee dalay moytu respecté la jox la cër du la ñemee tooñ ndax ragal ni kat bu la tooñee yàlla mën na koo teg li nga xamante ni bii moo di mbugal loo kon loolu bu amee moo tax màkka dëkk yi ab sécurité ci kaw suuf màkka la moo tax yàlla tudd ko wax ni wa haadal baladil amin dëkk bii nga xam ne dëkk bu am jàmm la dëkk bu am sécurité waxaat na leen leen ataamahum min juu'in wa amanahum min xawf kon dañoo war a waa màkka ñoo waroon a gën a jiitu ci wéetal yàlla ak topp yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax sante ko yàlla mi nga xamante ni moo leen defal jàmm jii ar len ba ñepp ragal len kenn ñu mu leena a wala mu leen di wax waye itam mbokk yi bokk nañ liñ ci jàng mooy yàlla jëla wax la ku mat ragal la te itam moom dong itam moo am kàttan ndax abraha ak ni mu meloon ni mu amee doole ak mbooloo mi mu àndal ak ak ñay yi ñu war ba leen yàlla bëggee toroxal alag leen yónniwul malaaka de waaye am picc la yónni picc picc ak ni mu ni mu néewee doole ay picc la yàlla yónni jox leen ay xeer ñu sànni ko ci seen kaw ñu lakk ba jeex tàkk ànk ñoog seeni ñay lu ko lool di wane ni kon yàlla azza wa jalla rek moo am kàttan te la gën a tuuti mën na caa def la gën a rëy mën na caa la gën a rëy kon muy buur boo xamante ni buur bu mat a gëm la buur bu mat a wéetal mat a ragal mat a jaamu ak mat a déggal ñi nga xam déggal am di topp ñi nga xamante ni ñoo di ay ah, ay yonenteem kon ci tënk mbokk yi loolu mooy saar yi ak li nga xamante ni bii mën nañ ko ci jàng ci ay bind di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ci baaxam ak yërmandeem mu defal toog xam ni bal te jëkkënante ñu ballu